dootu fi xéewal ci daraje sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam mbas mi yàlla na ko fi yàlla jëlee ba mu fi jeex fi tàkk ci daraje sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu del siwaat ak yéen seen émission Madhoun Nabi di dalal tàggatu sayduna muhammad yi sallallahu alayhi wa sallam tey nag ñu dalal ndaanaan ku ñëpp xam ci tagg sayduna muhammad koo xam ne day jël léppam jox ko rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam rawatina bu taxawee di tagg yonent bi soo ko gisee rek xam ne kii li muy wax ci xolam lay jóge muy turandoo Seydina Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam di Mouhamed Diallo fa tabarakallahu bàyyi ko ba Tëngéej macha allahu taala ànd ak turandoom macha allah Mouhamed Sarr te moom tabarakallahu ak Pape Sarr macha allahu taala ñu dalal leen fii ci seen émission Madhoun Nabi ci seen télévision Safina TV Mouhamed ñu ngi lay nuyu di la ziar di la bàyyi nga nuyoo. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu Seydina Ali mi ngi lay delloo nuyoo bu baax di la ziara. di la ziar bu baax di la ñaanal yàlla tawfiix ñaan yaan yàlla defal la jàmm si daraje sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam di am mbégte lool di bokk ak yow jotaay bu tëdd bu yow bi nga xam ne fa tabaarakallaahu ñu ngi lay chiffre ci jotaay yu bari lool lool lool lool fa tabaarakallaahu nga nekk sunu mag ju baax depuis fa tabaarakallaahu ca Tiwaawan ba tey macha allah ñu yàgg laa suivre topp la lool ñu ngi lay ñaanal yàlla tawfiix bu baax baax yàlla defal la ko ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di nuyu sang yu baax yi ma àndal Seydina Muhammad Sarr ak alxaaji Pape Sadio Ndoye macha allah rabbil alamin tabarakallahu Seydina. fa tabarakallahu Muhammad ñu ngi lay ziar bu baax yow tamit macha allah taala macha allah di kontaan lool ci bokk ak yow tey plateau bi ndax xam na ne mbooleem ñi bëgg Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam daañu kontaan daañu daañu bëgg fa tabarakallahu di nuyu kilifa diine yi nekk ci biir réew mi. jëlee ci sunu xalifa sunu kilifa sëñ Babacar Sy Mansour di ko ñaanal yàlla yal na yàlla guddal fanam yokk wéram taxawaayam ci diine taxawaayam ci tarixa bi fa tabarakallahu ñëpp teg nañ ci seen bët fees dell woyof toll yal na yàlla guddal fanam ci daraje nabi Mustafa sallallahu alayhi wasallam noonu la ñu def nuyu dem ba Touba nuyu sëriñ Muntaqa Mbàkke fa tabarakallahu macha allah waaye nuyu rek kilifa diine yi nekk ci biir réew mi yëpp macha allah taala waaye nuyu nag Cerno Hamidou Baan tabaarakallaahu di ko ñaal yàlla fi mu bëgg a yegg ci diina ji ak fi mu bëgg safina yegg fa yàlla ko fa yàlla yeggale waaye nuyu suñu directrice soxna Yuma Ba nuyu nag suñu technicien bi nga xam ne tabaarakallaahu image yi su ngeen ko dee xool muy leer di jaar yoon tabaarakallaahu moom la muy alxaaji Sàmba si fa tabaarakallaahu ziar ko baax ñaanal ko yàlla yal yàlla gën koo dooleel guddal fanam yokk wéram ba li mu bëgg moom it yàlla defal ko ci daraje Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon Mouhamed dañ lay bàyyi rek nga bégal soppee Seydina Mouhamed ci sa turandoo وقفت بأيران من لا إجازة أكاتم سفرات جواني ما بيا أسايل أن أهلها أين يمم فسم صداها أن تجيب المناديا الحاج منصور نينا وكيف يجيب الخول رسم موفر ينتر أحمده صلى الله عليه وسلم أفت أيو إلا صلاة صلاة غير وإلى رمضان قتيا يا أحمد صلى الله عليه وسلم كخط كتاب يقط المساء يا سن النبي يا رزال أقسام بان برودي ويمسن عنك القوان موان حبيبتي خاليا

الإمام محمد رمل وجلال وهيبة ووهاب وبعاء ورفعة واحترام أنت الإمام Abi ya Imam يا إمام مساوام الهدى لوانا وسوقا وود وودا عليك المنام مساوام الهدى لوانا وسوقا ووجدا مرعونا أيوة. لو وسو خطوة وودا وغراما فما عليك وإلا منام وخراما فما عليك الملا يلا نفتك نحن في روضتي رسول جلوس وسلم

النبي صلى الله عليه بغمامة فلك في طول غاد حل في حل في خمر خمر النبي صلى عليه الغمام مسلم تكسبوا دموع عجفون وهي من سجام والله فلقا في طول قد حل فيه قد حل فيه خمر خمر نبي صلى الله عليه الغمر ينتبه كيف لا تسأل قولي وتفنى وحي الكرام ملقى بالدور خات على فيه ويبين الخمر نبي دللت عليه الغمام انتبه يا رسول الالهي اني محيي صلى الله عليه وسلم لك والله سايخ مصعب زللت عليه الغمام مصطفى يا رسول الله في كله لك مني تحية وسلام قد حل في قمر قمر النبي صلى الله عليه الغمام مصطفى يا رسول الإله يسوق نفسي سيد والغرام فيك الغرام الزيد والغرام فيك غاليا زيد والغرام فيك الغرام عليم زيد دوم دايم مصطفى فيك الغرام مدفلني زهيد هو الغرام فيك الغرام زيد والغرام فيك الغرام يا زيد أيوة أيوة الغرام فيك الغرام انت بزيد والغرام فيك كسب دفل سعيد أيوة الغرام فيك الغرام زيد والغرام فيك الغرام يا زيد أيوة،, أيوة والغرام فيك الغرام زيد والغرام فيك الغرام ينتبه يا رسول الإله جئتك أسعد غير سنوب وحيا إزاما زاهد والغرام فيك الغرام سفنا إفهم زاهد والغرام فيك الغرام إن أنت بي يا رسول الإله إني نذير ونذير

ful jood ay waay wal wafa waayantuma maqsadi li faqri wa bil yuraful jood ay waay wal wafa waaw waaw walakum hurmatu wajaa عظيم ووفاء ورفعة لا تراب ولكم حرمة وجاه عظيم ووفاء ورفعة لا تراب نبي ليلة الإسراء كل سماء سجد الكل إسراء أوخى ندب ليلة الإسراء كل سماء سجد الكل إسراء أوخى ليلة الإسراء الكل سماء جدل كل إزراء أو غا واوا وتخادم أي وتخادم أي وتخادم أي وتخادم أي وتخادم أي وتخادم أي وتخادم فصلى كلهم مقتدين وألتم ne leen kulluhum ñoom ñëpp muqtadi wa yaay seen imaam musawa ya nabiyal ilaahi fi hadratil wa sikari mulawa

دواء ويا إلى السماء سلي عليه كلما كلما دام السماء دواء وواو على أهله أجل البرايا وعلى سبيل جميل nabihi Barakallah Barakallah Barakallah Masya Allah Wallahi khol sedna uh, ah, Mbok yi gis ngeen ni ma len ko waxe won neewon na len Muhammad bu yekete rek ngeen xamne limi wax ci xol lay joge Tabarakallah ay way nak bala bala neex ci ñamu jëm ci ñukay koy woy lay njëkk neex te ñun sentir nañ affaire yu neex na kon fa tabarakallah yàlla yàlla barkel ci daraaje sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wasallam alhamdulillah alhamdulillah rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala rasulillah amma ba'd ñu ngi sant yàlla bu baax di julli ci sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wasallam muhammad sa turundo kenn du mom dedet moom yàlla dafa bëgg rasulillah te neubatu wu ci xam nga léeg-léeg nga bëgg nit ba pare di ko nëbb ngir bañ ku lay ku la mere waaye yàlla dafa bëgg rasulillahi te bañu bañul moom yàlla ko ko ci mere yàlla moo jël ci leeram bind ci leeru rasulillahi jël ci leer sayyiduna muhammad amal ci awaalima kulliha سمام سيح سيدي الحاج مالي نه إن العوالم عليها وصافي لها أشعة طلعت من أفضل نسمي ابن عباس نينا كتربين من ميل العالم يو أم وعاليها يتي جنة كوي وصافي لها يتي جنة سوفي نيوم نيوب أشعة أي تينير لن يو طلعت نيوم غي فنكي من أفضل نسمي تي جن جنة رسول الله صلى الله عليه وسلم jant bi mooy lumière bu mag bi moom mooy dégager ay ceeñeer ceeñeer yooyu ñooy bëtt biir néegi dugg ci biir néegi leeral néegi ceeñeer yooyu nag fa ñuy ballee mooy ca jant ba jant ba nag dëgg dëgg jant mooy Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci abadaa bu ruux Siraaji Maalik mu ngi nettali ne jant bi dafa toog ba yàgg mu ne ak a neexoon ñu xaaj leeru rasulillahi fukki xaaj man jant bi ñu séddee ma benn bi kon ma daw ba fattu Mm-hmm. motax jent limi leer leer leer leer leer munul génne takkandeer rasulillah parce que njol maka upp jent leer motax jent mën ta génne takkandeeram motax rasulillah amul takkandeer gis nga souf mm-hmm. nee rusna Rasulillah di dox ci sama kaw may may pendal ay tankam ndax fonk gim fonk Rasulillah. motax tax maka bu doxé ci souf si souf ci day mujj deuguer ba bu njol maka joggé ay tankam do gis famuy jaar déggal xeer xeer xeer feelu ko ne man xeer li may wow wow wow rus naa njool màkk joggi sama kaw may dëgër dëgëru damay faf nooy moo tax njool màkk bu jaaree ci kekk nga gis ay tànkam kooku du ñun du ñu moom وبالخمام سرللا مولاه في الخواتر والعنكبوت استقبلا حبا بنصب فاتر بصرى لخير إن المنى بذا الإله سيد الخلق وزارنا سر الهنا أهلا به مصطفى وبالغمام زلالة مولاه في الخوات والعنكبوت سبلا حبا بنصر غير ربنا حبا بالنزج الفاتر بارك الله كندو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam la yàlla tànn ci biir nit ñi ndax yàlla ki mu wóolu mooy sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu jël li mu gën a fonk moom yàlla jox ko rasulillahi muy alquran xool diine yépp diine bi ci gën mu jox ko njol màkk muy diine lislaam yàlla ne inna diina inda allahi lislaam rasulillahi li yàlla wàcce ci moom mu gëm ko Mouhamed boo nekkee ci mbir te gëmuloo ko pour nga avancer ci day jafe. day jafe loolu de wallaahi mbir boo ci nekkee te gëmuloo ko pour nga avancer ci day jafe parce que li nga ko war a jox doo ko ko jox ndax est-ce que est-ce que est-ce que moo lay tardeel waaye soo gëmee li nga nekk xam li mu doon xam fa nga jëm ala kulli xaal day yàgg waaye di nga yegg rasulillahi li ko yàlla jox daf koo gëm amana rasulu بما أنزل إليه من ربه وإنك والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المسير يلا ني سيدنا محمد مي لما واتي موم مي القران دي دين الاسلام قم نكو دي واي جوليت نييت قم نكو kon nag ñun du ñu séparé yonent yi yonent yëpp yàllaa leen yónni yàllaa leen chargé mission kon nag laa nufarriqu bayna ahadin min rusuli kon lu ñuy wax wa qaalu sami'na wa ata'na waaye li ñu ñaan nag mooy ka rabbana ndax wa ilayka almasir li ñu maa def ci ay rëcc-rëcc ki ñu koy jéggal mooy yàlla ndax bu ëllëgee ci yàlla la ñuy dellu kon jullit ñi gëm nañu yonent yëpp rasulillahi nag mission boobu ko yàlla jox daf koo dox ba mat sëkk ba yàlla jekk-jekk ne ko al yawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum lislaama diina mission bi ma la chargé woon yow rasulillahi def nga lépp lépp mat na gërëm naa la sant naa la ah macha allahu taala kon diina ji bàyyiwul dara rasulillahi nag moo ne man wajadtumuuhu yaamalu amala qawmi luutin faqtuluuh faqtulu alfaila wal mafuul bi njol màkka nee na ku ngeen fekk muy jëf-jëfi waa nitu luuti ya nee na ngeen ko rey nit luuti lu daan def góor ñi dañ daan soisir seeni moroomu góor bàyyi fi jigéen ñi te yàlla ne wa min kulli shay'in xalaqnahu zawjayni yàlla ne lu ne bind naa ko muy peer muy ñaar boo ne kanam looy wax gannaaw boo ne ndeyjoor ni boo ne kaw ni boo ne ñuul ne hmm? weex kon lu ne yàlla bind na ko muy ñaar soo ne góor ne jigéen kon nag góor ak jigéen ñooy ànd ñi liggéey ci wàllu courant sax xam nañ ne Bo bolé plus ak moyen ci nga man am courant so bolé ñaari moyen do am so bolé ñaari plus day sauté kon pour mu mën bax da ngay bolé plus ak pour nga mën am résultat bu bax kon goor ak jigéen ñoy and sey pour mën am njaboot waye goor ak goor bu ñu doon sëy ba yowal qiyam njaboot du am jigéen ak jigéen bu doon ba yowal qiyam du am ta ñol màkk nee na takk leen ci jigeen ngeen am ay ay doom ndax bu yomal khiyamé damay poukarante gi ne yonenti nan leen ma leen upp aw xet legne yow nga ne goor leung ne sey yaay sa ngóor gi la yalla defal neexu la yow dal tay da nga bëgg doon jigeen ah yaa réere nga yalla goor ni mu neexé ak li yalla defal goor yalla ne ar rijalu qawwamuna ala nisaa yàlla ban na ko ba yonent yonent du ko def muy jigéen góor rek lay doon nga xam ne yonent yi lu yàlla bind moo ci gën a foor ah yàlla def la góor nga ne sama ngóore gii tey neexuma dama koy soppi doon jigéen ngir lan alalu àdduna kese képp rek nag alalu àdduna rek moo tax yenn góor ñi di góor góorlu njol màkk nee nag ko fekk góor ñaari góor di sëy na ngeen rey kay sëyee ak ka ñuy sëy hmm. rey leen leen moo tax yàlla wax na ci alxuraan ne wa luutan is qaala li qawmihi atatuuna alfaxishata maa sabaqakum biha min ahadin min alaalamin su ngeen ko defee daal innakum la tatuuna rijaala sahwatan min duni nisa ndax yéen dangeen di indi ab ñaawteef boo xam ne kenn mosu koo def ci àdduna bi yéen ngeen bëgg koo def luut moo ko waxoon ay nitam mm-hmm. atatuuna rijaala sawbatan min duni nisa ndax da ngeen di dikkee góor ñi rek ngir sàkku bànneex bàyyi fi jigéen ñi ndax nag Mouhamed kuy séyee góor hmm. doom taxu laa jóg déedéet bànneex rek la tax a jóg moo tax mu ne atatuuna rijaala shahwatan ngir rek bànneex min duni nisa bàyyi fi jigéen ñi te sax nag bànneex bi yàlla def ci jigéen def ko ci góor xanaa bon rek bon mu ne bal antum qawmun musrifuun yéen daal yéen yéen ay nit yoo xam ne da ngeen a jéggi dayoo ci yàq ndax jéggi dayoo ci yàq weesuwul yàlla bind jigéen bind góor na ñoom ñaar nañu ànd nga man fee bàyyi jigéen di dem ànd ak góor loolu moo yàq société bi léegi nag mbooleem ñi nga xam ne ñooy xeex diine nag foofu la ñu profité wan leen alal ju bari boo ci duggee balaa yàgg nga commencé am 4 bu baax commencé dem réew mu la neex yor say kër yu rafet di lekk lu la neex waaye bismillah si daxaa ji male nee na laa xayra fii lazatin baadu lahib nee na bànneex boo xam ne la cay topp mooy safar nee na yiw nekku ca ah yiw nekku ca kon yàlla yàlla doolu sutura ci daraje Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon mu ngi noonu kon nak lolu lañ ci doon teunk rek ci gattal goor jigen mom musi wala yalla ci yalla musal ko yalla natto be bay ba nga gaaw del wat ci yalla kep ku ci nek ba de safara nga jëm ku len di dimbali waxi nopi kon yalla ñe ci yalla musal ci goor jigen yalla ci yalla musal rew mi di senegal ci daraaje Muhammad sallallahu Alaihi wasallam kon Muhammad ñu dem sunu waji sang-sang yi Seydina Muhammad ki nga xamne ne moo lepp ki nga xamne ne na lepp باي فاطمه اك زينب باي رقيه ام كلثوم إيه لا محمد واوم لي في نور الخالق تمام واوم لي في نور الخالق تمام لما فايزا خبر إسلام في الإمام وصليا يا إلهي وجيا أبدا أن محمدنا نور الخالق تمو لما فاز قبر إسلام في الأمم أنام أن نال المختار في القيدة مولاني جاءوا إلى حمي جيم ليقصر من يوحي بي دعنو خنع في الأنيولمي أن محمد المختار في القيم مولى مالك بقتم الانصر صل لا كفو سلال سقيفة كتبوا ويلا لمجتاري غاني وصليان يا إله موضو أنام محمدنا المختار سيدنا الانفيد كفره بقتم سرسل للكفو سلال سقيفة كتبوا ويلا لمجتار قلقاني عن الليان أبدا أنام محمدا مولى مختار محبة ويمن صلى الله عليه وسلم محمد لبيك دغا واخ ñaari mbir waaw da nga way waxum li itfa nurin ba pare mahabbatu wallahi wallahi dama xamul nak ndax mahabbatu la jital تتي وهم لإطفائي ولا بوك دامي جيل وهم لإطفائي تتي محبته هو يمنون وهم لإطفائي نورين مام سيدا علي مال دا وخني وهم لإطفاء نور الخالق اجتمعوا لما فشى حبر الإسلام في الإمام واجتمعوا دجلونا نيو هم نيوم يفيريا لطخ li itfaay ngir na ma fay nuurul xaaliqi leeruk aji bind jii di yàlla loolu kañ la moo doon ne la ma fasha ba siiwee xabarul islaami information l'islam fi l ci xeet wi bi l'islam demee ba tasaaroo ci xeet wi ñëpp commencé coow l'islam yéeféer yi taxaw temm ne dañuy fay lislaam alaaji Maalik ne première action bi njëkk a def mooy jaawu ila ammihi jiiman li yaxzulahu man yabgi bayda anuqin aaqilan yulami dañoo def délégation ñëw ci abdu abu talib ne ko sa doom jii di rasulillahi ah sa sët bii dañoo bëgg nga jox ñu ko dañoo bëgg nga jox ñu jol màkka ah ñu rey ko ah, ñu jël xale bi gën a taaru ci ci ci màkka jox la ko mu doon sa doom nekk say service lépp loo bëgg nga ñu def mu defal na ko Abu Taalib ne leen ma jël sama doom jox leen ngeen rey ngeen jël seen doom jox ma ma yar ndax xel nangu na ko moo tax moo ne man yabri bayda anuuqin aaqilan yulami nenu nenu nenu banjooli mhm. ku koy sakku tay borom xel ku la gis war la meuna yedd ndax famuy neena sori ndax am ko rek bakkan xëj na ca am nen ku mu jaral ba sa bakkan nek ci xottu gerte ca deug deug deug deug ku la ko han <laughs> ah? ku la gis war la meuna yedd alaaji malik ne ci nak l'islam commencé digënd di yok ñu xam nga ñuy defam nañu dajalo réunion ñu embargo Seydina Mohamed ak jabootam sallallahu alayhi wa jëndati ci ñoom buñ leen jaay buñ takk ci ñoom buñ leen may buñ seq ak ñoom dara nañ leen beer ñun ñu weru décret ba ka ko bind alaaj maa leen xam naa ko ñu ne kan la mën a mën suur waaye ba mu ko bindee ba noppi la ko dal xam naa ko alaaj maa lan la ma daa loxo ba daa sem dafa bind ba pare rek loxo ba wow koŋ sem mënatul dara moo tax mu ne bi xatti mansuura shallat kaffuhu shalala saxifatan kataboo waylan li mujtarimi mu ne kataboo bind nañu saxifatan fooy ba bi xatti mansuura ci bindu mansuur waaye nag sallat sem na kaffuhu tenqam ba shalala ak sem kon waylan mbugal lil mujtarimi ñi ne way bàkkaar yu te mooy yéeféeri makka ya الجرم وسليا يا إلهي وجزيا أبا يا محمد أبا مختار في القدم مسوى وخبر المصطفى من أنها لعمه يا نور من صادق الكرم وصليا يا أرسلت جن عليها سوى ما كان للحاكم وصليا يا إلهي وجزي مولانا أن محمدا المختار في الخدم baarakallah maam Sidi Xaaji ne dañu yónnee rasulillahi am juróom-ñaari at ci la embargo bi am embargo bi nag diire na ñaari at ñi ne ñetti at ñi ne ñaari at ak genn waal bal qiila jiiman kaana muddatuhu wa qiila baynahuma nahjalahu dastaqimi waaye njool Makka toog ba yàgg mu ne bàyyi taxam Abu Talib ne إن الله سلت أرضا عليها سوى ما كان للحكم يلا يبلنا بيننا مخ لكنا فوي بومجيخ تك بام دستور يلا بو تيد بسم الله الرحمن الرحيم الله اكبر مونيكو نخ لي واخ دغ لا مونيكو موسما واخ لو دغ ني دم فيريفي غيس لا نجال ماك واخ دي دغ صلى الله عليه وسلم فلا مير ما جيخه واي سونو ناني لول سونو ناني لول كون الاسلام ياغنا سونو kon fa tabaarakallaahu lislaam ay jàmbaar ño ko indi fii te mooy kan sayyiduna muhammad ak i sahabaam yàlla ne muhammadu rasulullah waaye nag wallazina maahu ashiddaau ala kuffaar moo tax taxawaay boobu fekk ñun jullit ñi amuñu ko yéeféer daañu yàq lislaam wallaay dëgg la de waaye nag ñoom foo leen fekk ruhamaa u baynakum ñoom saxaaba yi dañoo yërëmante woon seeni biir bëggante soppante moo tax ñun ñi woot ñu ñuy wax ashhadu an laa ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah fekk booloowuñu doon benn bëggante àndandoo doon benn ala kulli xaal yéeféer du ñu dañuy dañuy mosaman rek faaw ñu doon benn aljamaatu rahma wal furqatu azab waaye ñii ay chia lañu ñii ay sunna lañu ñii ay murit lañu ñii ay tijaan lañu ñii ay laayin lañu tax loolu pas-pas yooyu bëgg ñoo wuutale fa la noonu lislaam yi jaar yàq lislaam li boole mooy ashhadu an la ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah te képp koy ashhadu an la ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah amoo droit noonoo ko kon faaw ñu ànd comme ni sahaba yi andé won ak rasulillah faaw ñu bëggante comme ni sahaba yi bëggante won seen biir mahabatu yumnun alaaji Mansour inspecteur tariqa bi borom ñaari kaalay doomu sidil xaaji malik bàyyi serigne babakar si Mansour al khalifa neena na mahabatuhoo bëgg sayyiduna Muhammad yumnun barkela la mahabatu yumnun mahabbatuhu alaaji Mansour ne lépp loo yëngal bëgg loolu am barke ne na bëgg rasulillah wax leen mahabbatu yum noon yow miy sëy bëgg sa sëy bii ngay sëy yàlla barkeel ko alaaji Mansour ne fexe rek ba bëgg rasulillah alaaji Mansour ne eh dama ne yow mi yor entreprise bëgg sa entreprise bi jëm kanam Alaaji Mansuur nee na bëggal njol màkk yàlla barkeel ko eh Alaaji Mansuur ne lépp looy def ci àdduna ak lu mën a doon ci gàttal Alaaji Mansuur nee ne soo bëggee loolu barke nee na nga fexe ba bëgg Rasulullaay boo bëggee njol màkk yàlla barkeel ko waaye soo bëggee am sécurité ci àdduna am sécurité ëllëg yowmal xiyaam ba bu la neex nga génn dox say soxla doo dajeeg lu lay lor alaaji Mansour nee na fexeel ba bëgg rasulillahi wa rahmatu waaye soo bëggee yàlla yërëm la bëgg rasulillahi wa tasuu min al anwaari man kaana Muhammad bu yowmal xiyaamee kenn du sol yére alaaji Mansour nee so beugé ba yowmal xiyaama yàlla jël mbubu leer solo la nee fexel ba bëgg rasulillah xuy la quraysin way waay mbugal ñeen la wa quraish isqalana is lima li yustaqbalu min alzamaan is qalawhu ba ñu rasulillah wa waddahu ta beug jol makka min alqurabaai alxurri man kaana maahiya ahlul xurri mooy dëkk village yi waroon màkkatal mukarrama nekk ay néew ju doole ñoom ñëpp àndandoo woon bëgg rasulillahi te jamono jii bëgg rasulillahi boobu waa màkkaa ngi bañ njool màkka waqat jaawu jibrilu déggal xat xafu taxqiqin jibril bil waxyi amiral amiral mu koy digal bil waxyi العجم dan نيلة ونبعين عمرو يرجو يرجو يرجو يا رسول الله دا نيك مكة المكرمة ومكة صنع القلول بين بيس نك وا مكة ييب داجالو di réunion pour ray rasulillah sallallahu alaihi lol mën na dem ba yag mu ba mu dee am am am ku ne ko déet fekk bobu iblis mu ngi soppli ko don ben magat ne mu nga jóge ci najjid ta najjid ay nit yu am xel lañu mu ñoo ngir bok ci réunion bi kene ba mu ñëwee dañ na ko doo dugg waye biñu ñëgé najj la rek ñu ne wa ay borom xel lañ na yegg iblis mo oh kok ko baxut waji baat bi dafa neex te dafa élégant ba nga ko tëjee ci fofu lay tok di jang yoyu muy jang ta kon buñ ko rombé dégg ko ah dañu ut pexe ba génné ko fofu ndax waji ji baat bi dafa neex té limi wax dafa neex lolou du xalaat keneen daal ne dañuy jël boom yew ci tank bi yew ko ci gilem dak gilem bi gilem ko dugg ci àll bi muy dal ci garab yi di dal ci xéer yi ba faatu ñu né ah iblis né lolou baxul bobu du xalaat buy démarré am koy japp gilem bi dag buum nga mu recc abu lahab bi daal xam nga nu ñuy def comme makka fukki giir ak ñaar ño fi nekk manam fukki ak ñaar ño fi nekk xeet bu ci nekk nañ jël waxambaane ba ci ëpp doole ëpp ca kattan ñu jox ko jaasi ñu tiimandoo rasulillahi xàccandoo dóorandoo njol maaka faatu boobaa nag ay fameem ñu mën a xeex ñun ñëpp eh. bu ñu xeex ñun ñëpp ñu rey la ñoom ñëpp ñu jeex mu jeex benn yoon bu demee ne ba amuñu pexe bu ñu laajee diya ñu ñëpp bu ñu cotiser ku ne la ngay joxe du bari ñu fay diya ba mu jeex iblis iblis na ko waaw kay nag boobooy xalaat ba di ko boobu bañ réunion eh. boobu yàllaa ngay riñoo ca kaw asamaan ak malayka yi yàlla ne jibril dama ci rasulillahi nga ne ko tey jii bu mu fa naan màkka وقال لا تستبد يا آخرة القرآن على فراشك نحو الأعداء في الهمم كذلك سيدنا, سيدنا محمد بمي بمي عندك أبو بكر الصديق ورد مدينة منورة كذلك مولا من كدين كون سيدنا علي لك جوخ نكا علي لي سامبا سيمو كمام سنين جوخ لي محمد جالو كمام سنين جوخ لي محمد سارة كمام سنين جوخ لي باندو كمام سنين جوخ نين كان يب جوخ سيدنا علي أيوة بدون يلا يلا فخي دلا رأي ngay daw di dem ci ñu dénkoon la seen alal noy def jël lépp yobale way ñol Makka dafa mossa mando maandu bëggalul kenn lennam mu jël lépp jox ko Seydina Ali Seydina Ali na moko do doon delloo alaaji mun sóor ne wa naaba aliyun anhu yarjul ayadiya wa yasin yusaahibu siddiq fi kulli mawtin wa yaqlu في الغار ma kaana xaasiya yusaahibu siddiq nee na yusaahibuhu siddiq ki àndoon nag Seydina Muhammad ba muy dem Madina mooy Aboubacar Siddiq fii kulli mm-hmm. mawtin. ci bépp wàccuwaay fu nu mën a dem rek ñooy ànd. wa yaqoo is yuxsi waaye nag ba ñu demee ca ma dugg ci biir xuntu wa. yàlla yabal lënd ba lënd ba lënd bunt bi. am pitax ñëw tàgg fa. pax ya fa nekk yëpp Aboubacar fatt ko ba amatul lu mu ko fattee mu des benn pax aw Aboubacar Siddiq jël tànkam sës ci pax mi. ni ko am na jaanu ñàngoor boo xam ne mu nga fa toog ay junni at ndax waxoon nañ ko ne ko yonent bi gën ci yonent yi bisa ngi ñëw dina ñëw dina jaar fii moom mu toog fa di ko xaar ngir ziyaare ko Abubakar Siddiq bokk koo xañ jaan ji mbëkk tànk Abubakar Siddiq ma mu dëgër mu mbëkk mbëkk mu dëgër rek mu màtt ko bi mu ko màttee Abubakar Siddiq ci tegginam ak fonk gi mu fonk rasulillah yënguwul ay waaye bu doon ñun ñun ñi la sunu sëriñ tëdd daal jël dal jël bopam rek tek ko seni pooj ba jitt fett ñu jiit rek la jitt bu koy daan ñu bi fay lay dali waaye Abubakar Siddiq yënguwut. dangaru jaan ji tangor yi moko jax ba mu ñak ba ñak bi tok ko daa laa rasulullah njool ne ko lu xew. mu ko dafa am lo mat lan la muy ke tank muy jaan. mu ko jaan ji tax nga mat ko. mu ne ko ah ma tok fi ay at di la xaar nga ñepp bur bo ñëwee ma ziar la. mu ñëw mu bëgg ma koo xañ ma mat ko. waaw. ويفز من خلقه وأمامه وأمامه وكان الإله العرش للكل واخيا waaye keneen nag njool màkka ci la jël kaalaam gu tedd nga jox ko Abubakar Siddiq ne ko saa bu la dangar di ñëwale yee ko ci boo ko yee mu wàcc. waqad hajaba allahu ida bi amamati moo tax yàlla mu ngi aaree rasulillahi ci ab petax. وقد عجب الله وداع بحمامة بحمامة تبدح وبالعنكبوت وبالعنكبوت أظلم عمر راسيا وين أجر جونجا جر جونجا يولند بحمي لند بنتبي بتح تقفى يفري بني بيك سخال دس لند ي بتح ميدان أفين جل نكان يكفي بفين يكون لند بياق نبي الله جمل نبي الله jammul fadail, nabiyullahu jëmmul fadaayilu day denan nee na ab yenente la boo xam ne mboolem ngëneel li yàlla nga ko ko jox moom rasulillahi fawaadilu tasri quyusal awamiya nee na taw li muy bëri bëri barke moom taw li muy bëri bëri ngëneel moom taw ay ngëneel rasulillahi daf koy xeeb wal musal muxtaaru kii la yàlla tànn ci biir gaañe tànnaat ko ci biir gaañe bat am ca tàmbali ma ba la ko yàlla tànn ba ëllëg amul kuy ni moom bii bii ci barke njool Makka wax leen bii xatama allahu risalata xatama allahu bi nga xam ne moom la yàlla jox rasulillah ngir mu orienté jaami risala boobu ci njol màkka la yem kenn dootu ko amati fakkim bi man asra billaahu laylatan alaaji Mansour ne na kaw teef ak tedd nga ñeel sang bi nga xam ne yàllaa ko rañaanal a guddi bi yataaqa sabati baaqal awaliya mu ngay xotti asamaani juróom-ñaar moom rasulillahi wuy ji yàlla sama alaaji Mansour ne yow min xaaba xawsayni alaaji mo alaaji Mansour ne na njol màkka dem na ba jegeeg yàlla comme xalak xocc mu li rabbi waaye nag mu di ran muy leeral yi rabbi kii ñeel borooma. dana. waay waay danaa jege na. fata dellee. fata dellee ak jege. suma haasal. suma haasal mu laq. maaliya almaaliya ay ma yi. tawee walam yëg nu daanin. takat walam yëg nu mësul jege daanin benn aji jege. fil bariyati kulliha. Eh, fil bariyati ci mbindee fi kulliha ñëpp laa wax. dunu wa kay yusxu. tibta waxdaka xaaliya. dunuuka comme sa jege yow ya, rasulillah is xuutibta ba waxante ak yow wax daka yow rek haliya nga wéet fa yow rasulillah yow rek ak yalla ngeen tok di waxtaan bu yow ni nga jege yalla yow rasulillah ken mësu ko jege yàlla laysa bil musrin takat wa aba delusina ta fek wajhul layli kana mu guddigi laysa nekkul bi musrin aji leer bi mi delusi bobu boobu ber bër bër sa dëgut yuradi in kayna baa yuraddidu ayaati sayyidina ba waqiya mu nga ñëw jàng alxuraan yuraddidu ayaati sayyidina ba waqiya nga ñëw di jàng al karim di ko jàngal gaañ mu rasulillah والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنزل آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا وهي الأسقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون كن رسول الله يرد ndeysaan waya doxo mu ngay ñaan ilallahi jëm ci yàlla maa asira rahmatan mu ngay ñaan ak yërmande moom rasulillahi wa way bil maarufi yanhal wa yamuru mu ngay digle moom njol màkka bil maarufi ci mbaax waaye way yanha mu ngay tar almanaahiya lépp lu yàlla tere bi tasdiqi siddiqu dëggal gi ko Aboubacar Siddiq dëggal nag. naa la ci la amee moo Aboubacar Siddiq saadata ak texe. bi teg ci bi ndaalal la joojul maqaasiya falillahi Ciao, Ronda. Yayi sangguturasa tirizute di wajajum. Yayi sangguturasa tirizute di wajajum. Yayi irfan. tirizute di wajajum. Yayi sangguturasa tirizute di wajajum. Yayi sangguturasa tirizute di wajajum. Yayi sangguturasa tirizute di wajajum. Yayi sangguturasa tirizute di wajajum. Yayi sangguturasa tirizute di wajajum. Yayi sangguturasa tirizute di wajajum. Yayi sangguturasa tirizute di wajajum. Yayi sangguturasa tirizute di wajajum. Yayi sangguturasa tirizute di wajajum. Yayi sangguturasa tirizute di wajajum. Yayi sangguturasa tirizute di wajajum. Yayi nijaamul irfaani yow mi nga xam ne xam yàlla ci yow lay balee sëriñ Maodo si ne e, yaa man bu isa li rahmatin wa hidayatin déggal sëriñ Maodo si ne bàyyi sëriñ ab papa Abdou si ne yow mi nga xam ne yow la yàlla yónni ngay jëmmi yërmande waaye yow la yàlla yónni ngir nga orienté jaam yi salaamaaleykum malayiku rahmaani. mboolem malayka yërmande yi. yu ngay julli ci rasulillahi. siidan la rusulil kiraami jamiahum. mboolem 313 yi seede nañ ne Sayyiduna Muhammad mooy sang-sang yi. bi imaamatin wal xatmi fil quraan. ñoom ñëpp ñoo seede ne njol Màkka mooy njiit la. ñoom ñëpp ñoo seede ne ginnaaw rasulillah yonent dootul am. loolu nag mu واي واي فلا انت نور يا لير بيغا خامني قد تدغ خلقت بنيفنا لا تفد موم يالا تفضل سي غنيل من نور ربك القصد بالرضواني منكو يا رسول الله يا لير بيغا خامني بنيفنا لا سي غنيل سي لير سني بروم يا رسول الله قد كنت كنزا خافيا لا déggal ne la xat ca de kunta nekkoon nga yow rasulullah kanzan di magasin xaafiyan bu nëbb lawlaa ko bu duwoon ak yow bu duwoon ak yow rasulullah maa barasat du feeñ samsul sumusul sumusul xaqiqati lil ixwaani jant waaw bu doon ak rasulilah du feeñ ci mbokk yi. xat xaala rabbul fi kursi yàlla wax na ci aras ci séesam moom moom yàlla. faqalaqtuhum lil birri wal imaani. yàlla daal moo bind rasulilah ci ak mbaax ak ngëm moom yàlla. suurul wujuudi tajassadat fi ruuhikum. nee na suurul wujuudi melokaanu mbindee fi. حتى تجهز جوغاي بالي من روحكم تي روح يا رسول الله تلخي بصر العبد الانساني ما مام سيدي حاج مالي موكا نيكا وخو ما خلق الرحمن شيئا لنفسه سوى سيد المحمود وهو حبيب وانا واوجد باقي الخلق تعظيم حبه عليه صلاه الاله تقيب وانه اذ اراد الله نسعتنا ابال من نوره نور النبي العالمين يا فانت بين الخلق رابط وحده nee na yow rasulillahi ci diggante mbindeef yi yaay ki nga xam ne yaa boole ñëpp yow njool màkka wa mahabbatin wa salaamatin wa amaani yaa leen boole ci bëggante boole leen ci jàmm waaye boole leen ci sécurité fi diini waaye nga jaare ko nag fi diine ci diine ji fi xayaati wa jawrun xam nga diine xam nga diine Mohamed waaw diine mooy mooy lié bi nga xam ne mooy boole mbindeef yi wallahi ndax koo xasa bokkal diine nekk ngeen ay mbokk wallahi rasulillah bi muy ñëw dafa am lu mu fekk wallaay li fi fekk mooy ak mbew li fi fekk mooy ku mën sa morom duma li fi fekk mooy ak tooñ li fi fekk mooy njaalo li fi fekk mooy jaamu xërëm jol màkka nag jëlee ñu ci loolu moom rasulillahi waaye indi na nag ci diine l'islam boole ñu ñëpp ñu nekk benn mu ne waxtasimu bi xablillahi jamian waaye rik waay wala tafarraqu fii si li yasmu banul insan inna tabi ate kulla barakallahu wala fi nenañu li duuf ci nak bi da xajandoowul ci cin li buñ ko daggatee ba mu sew def suñu filis der sa buñu ñu def mbaxalum puuj paaj tabarakallahu wala fi nenañ lem neexna na du dundu ndax Muhammad bo jël bari da ngay mandi nga ñol mo lem kon fa tabarakallahu liñ ci mosandi ni eh, dañ koy doylo ba benen yoon di wax ne nag doyluñu tabarakallahu ndax bay way day dugg ci xol bu suñu ñu fi lañuy nekk ba tabarakallahu waaye macha allah lu nekk dafa am euh, heure fu ñu koy fu ñu koy daanalee macha allah taala ba tax na kontaan nañ ci bu baax ci yow euh, di la ziyaaraat rek di la jox rek nga def sa kàddu tàggatoo ba beneen incha allah taala. Euh, Sidna Aline fay ñu ngi lay ziar bu baax di la ñaanal yàlla yokk sa tawféex bu baax defal la xam-xam yow lii ñu doon def nii. Mhm. cër bu rëy nga ci am. Hmm, ndax luñ ci xam. wallaay ndeysaan. am na luñ ci xam depuis deux mille depuis deux mille deux mille six deux mille ba 2005 daanaka daal. ba 2007. waaw jàpp 2006 2007. ba daanaka. ba tey jii nii. <laughs> daanaka liñ ci xam bari na lool. wallaay ndeysaan. lii ñuy def nii moom la daan def moom mii. est-ce que est-ce que. te <laughs> am ndigal ci li muy def nii. wallaay ndigal la am. Mm-hmm, mm-hmm. moo tax mu nekk ci waaye tabaarakallaahu. Mm-hmm, ñaanal ko yàlla yàlla dafa ko tawfiq. amiin mu rabbal aalamiin xam ay matxaat ci tag yonent bi la. amiin amiin amiin. waaye mu invité rek. am na lu tax mu invité rek. xam na ne yow. fa tabaarakallaahu waaye invité tabarakallahu ñu ngi leen ñaan yàlla bu baax ñu ñaan rajo bii site bii di télé bii yal na ko yàlla def mu nekk télé télé national amin ya rabbal alamin ci barke Seydina Muhammad yal na ko yàlla yokk amin ya rabbal alamin ku fi ñëwati daal dañ lay jox sa oto bopp jëg amin amin amin tabarakallahu tabarakallahu yow lañ invité tey oto bi yow lañ koy jox waaw yàlla mën na ko yàlla ko yàlla def yàlla def wallahi ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam gëm naa ne nag fekk yaa ngi fi yàlla dina ko def insha allah taala ndax Euh, ku yàlla baaxal nga. jërëjëf borom xam-xam nga ku mën a hmm. joxe sa xam-xam nga. jërëjëf yàlla yokk la tawfiq bu baax. amiin ñu bokk ñëpp ci daraja Seydina Muhammad di la sant bu baax di la gërëm. amiin amiin amiin cameraman bi macha allah. waaw ah, Samba si ñaanu mm-hmm. mm-hmm, mm-hmm. mu ngi dugg Sénégal daal. dana dem ba jëmmi jamono bu jaaru ci loxoom bu mu fi dugg. amiin amiin barke Seydina Muhammad. amiin amiin yàlla mën na lépp. ñuy ñi ah, allah di ko baax. ñuy ànd ci lépp. <laughs> Ah, ah. ànd ci lépp lépp lépp loo xam tagg Seydina Mouhamed la ñu hmm. ci ànd fa tabarakallah macha allah macha allah sama doom bi xaj Pape Sadio Ndoye. Hmm. fa tabarakallah ku ma hmm. déggal lool. macha allah di sama lépp macha allah. macha allah eh, di ko baax. tabarakallah di ko yaru lool. fu fu ma ko. yëkkatee rek mu jug. tabarakallah yal na yàlla yëkkati ay maxaamam. amiin amiin amiin day dem pale fu ne lay dem. Hmm, macha allah loolu lay dem di fa liggéey. tabaarakallah tabaarakallah waaye hmm. bàyyi yitteem yëpp. yow hmm, rek ne ma acca pap ñu dem ak benn. macha allah macha allah yàlla taxaw. am na solo am na solo rek laa ko. est-ce que est-ce que est-ce que est-ce que est-ce que tabaarakallah ñu ngi waa Tëngéej yëpp. képp koo xam ne yaa ngi yaa ngi ñuy safoo rek ñu ngi lay nuyu bu baax di la ñaanal yàlla. incha allah di nuyu sama jigéen bu baax fii nii ci. Euh, soxna Awa Diom. yàlla ko yàlla dafa ko tawfiq amiin amiin amiin amiin fii ci Sacré Cœur mm-hmm. macha allah mm-hmm. yàlla ko yàlla tabax yàlla ko yàlla defal tawfiq bu baax alxaaji bari mm-hmm. ñu ngi koy ñaanal yàlla bu baax ak soxnaam soxna ay dafa tabaarakallaahu ñaanal leen yàlla defal leen sutura du ñuy sama jigéen fii la dëkk rek xam naa sërwantoone Eh, tabarakallahu muy soxna Jeynaba Caam mhm. mhm. di ku baax lool moom dañoo jógee DTV rek gis ñu rek bëgg ñu ndeysaan ndeysaan defal ñu taraangaam macha allah jégal ci tout le temps tabarakallahu macha allah fii ci Grand Yoff yal na ko yàlla defal tawfiix est-ce que amiin Aliou sant la bu baax gërëm la baax ñaanal suñu way jëri yàlla defal leen tawfiix amiin amiin surtout li ñu mhm. am ci ñun di ñu ko ñaanal ba jiitu ca barsax yan yàlla yeesal yërmande amiin amiin yóbbu ko aljana amiin amiin suñu yaay jii ñi fi dese te mu mhm. ñuy ñaanal yan yàlla bàyyi ko suñu kanam mhm. ba ñu yëkkatiwaat bii maak yu bari mhm. na ko demaatal nga dellu ji Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla ko yàlla def te insha allahu yàlla dina ko def insha allahu taala tabarakallahu di nuyu baax léegi rek suñu yaay Awa Ndiaye mu ngi woote ndeysaan ndeysaan ndeysaan yaayu kii est-ce que est-ce que tabarakallahu macha allah taala léegi ci biir émission bi yàlla yàlla defal tawfiq amiin amiin amiin amiin amiin amiin assalaamu aleykum wa rahmatullah wa barakatuh تبارك الله ما شاء الله محمد امنا صلو يالنا يال دافال جام دغ يالا كونتان نان بو باخ خولي لول من مو تامل رك لا دانو ما شاء الله تعالى انداخ واخ دغ يالا ليغي واخ دافا نيه دافا سد خول كون سفينه تي في مغي سين ايميشن مرحبا بي تاي ني دالون تاي تبارك الله سونو سوبي محمد جالو di ko baax macha allahu taala di leen dox dig daje ci yeneen émission ci yeneen i ndaanaan wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.